رب العالمين والصلاة والسلام على الخير الأمين سيدنا ومولانا محمد المكي وعلى آله وصحبه أزواج الوالد والتمكين نيابة عن الخليفة العام الشيخ محمد المنتخب الخليفة العام لطريقة المؤمنين حفظه الله تعالى وعلي له والصلاة والسلام ci ndigalul Cheikh Mouhamadou Mountakha xam naa wax bu gàtt lay doon ndax waxtu dañoo xam te lislaam ni lépp lu ñuy def di ko ci jëme la ci jiitu mooy julli ndax asalaatu imaadu diin fa man aqaamaha fa aqaama diin wa man hadamaha faqad hadama diin bu doon tabax bii lañ koy misaal mooy keno bi ko téye nga xam ne bu taxawul rek day màbb kon ci ndigalu sëriñ bi ñu ngi nuyu bokk yi fi teel yi yu teel yi bokk taalibe yi di bokk ñi nga xam ne ñoo bokk ci sëriñ bi te bu ñu tegee nuyoo bi ci loxoom Cheikh Saliou Mbacké ñu Cheikh Mouhamadou Mourtada mu nga xam ne mooy kilifa jotaay bi waaye itam jiite lii nga xam ne waa mubaadara la mubaadara tayiba la boo xam ne waa daayira Touba Ca Kanam ñoo am xalaat bu jiite nag suñu kilifa bu baax bi bi ñu baax Cheikh Mouhamadou Fari ak mboolem li xam ne ko seqal kuréel gi yëpp bu ñu tuddee sëriñ Abdou Lahad Mbacké sëriñ bi mu nga xam ne mooy jëfandikoo ci liggéey bi mën a yóbbaale mbokk yi ñu seq yëpp ndax Touba ca kanam daayira la boo xam ne mboolem ñu yaakaar ci ñoom nit ñi ci liggéey amul frontière ndax moom ponk bu rëy ci dëkk bi ci liggéey sëriñ bi tey yàlla dafa dem ci taw feex da Serigne Touba dafa wax ci nawet bi loolu sax jëmm ko tax ñu waaye mën na sama jëmm sax boobu sama ay tëj fàntaat ay fi fa sax ak ndaje ma ko fa ay lu sori sax waaye yàlla dafa dem te Serigne Sall daa wax ne Serigne Touba ñaari xoolu taay bi ngay jëm ñu bëgg lu baax ñëpp maa ngi sant Cheikh Fall ngir xam ne ci lu baax rek li tax da nekk te lépp lu teg ñu ci kon nag ne fànn yëpp ñu ngi ci defar ci ba ñu lépp fànn ci assainissement ña ci làmp def ci làmp dafa bari yi itam seen taxawaay ñoom ci ànd ko suñu doom Serigne Mamour Mbacke Serigne Mamour Moustapha Mbacke Fadilou ak ñu ngi ko seqal ba ci Serigne Saliou moom Serigne As Diakhaté ñooñu ñëpp di ay jàmbaar yoo xam ne koo ci seen rek dangay xam ne kii dara itteelu ko lu may liggéey Serigne bi ba yàlla def nag lii nekkoon ak xam bu sew boo xam ne bu bëree bëree te dara jiitu ko ci lislaam muy muy zakat ndax boo xoolee alxuraan suñ borom fu muy waxe ci fu mu waxe rek asaka la ci teg balaa xel bi wa aqaamu salaata wa aatu zakaata wa lam yaxsha illa Allah fu bëree bëri boo demee tuddee julli rek asaka te mel ne nit ñi dañ ko woyofal ba tax ñu du ko fàtte ndax ni alal bi taq ci xolu borom waaye nag dañ xam ne asaka ji. bokkut suñu alal dañ koo moom xus min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha kon asaka nit ñi buñ xamoon li ñu jëriñ xam la ci suñ borom jubloon kon ñëpp day ne maase ci gën a góorgóorlu ci foog ndax liñ ci gën jublu mooy dana laabal alal yi ci koy ndax alal bi des te génne bu asaka moom boobu bu xasee man nisaab ba asaka wàcc rek ci nga xam ne suñu borom waral na ak ci ñu ko war a ko foog a doon sax néew na suñu borom lu muy détaillé ci biir ak borom daanaka lu yor suñu miraas ñu néew ñu sëpp lu jiw rek borom xam wal masaakiin wal aamiliina alayhaa wal muallafati quluubuhum wa fi riqaabi wa min as-sabili fariidatan min Allaahi wallaahu aliimun hakiim ba leer nañ ko war a wal mu'allafati quluubuhum yooyu boo demee ci Ibnu Aasir bi ñu wax ne mu'allaful qalbi wa muhtaajul gariib xaasil mu ko waxee sax ca ila axir bayt kon asaka yi ñu ko war a ci ne rek am na ci lislaam te bu ko ñëpp commencé ci di ko def lu bari ci ñi néew doole ak asaka ñoo ko génne di leen ko jox boobaa ñooñu daal la wàcc te Serigne Touba xam ngeen lu bari ci taarix bi ne ñëw na yëkkati ay di ko jox asaka la ci biir Serigne bi dem ne ko génneel asaka yi doo ko kon nag bokk taal bi gën a yeewu ci xam ne asaka bokkut ak addi asaka àq la ñoo xam ne suñu borom la yow mi liggéey alal ji ba leew la ba waxtu fekkaat fa loolu génn ko laaw moo waral xam nga ne naka jëkk ci lislaam baytul maal téere yu bari daw ko ci daan jàng waaye daanaka nit ñi dundutuñ ko sax ndax amatul ndax yooyu ay atte la yoo xam ne nit ñi dañuy dem ba fàtte ko wal wal aamiliina alayha boo ko déggee boobu ci yooyu jamono dañ daa sàkk ak kuréel buy dem di ko laaj ak di ko joxe kon kuréel gii ñu taxaw nañ xam ne loolu buñ ko nosee comme ñoom biñ baaxoo def ci seen yëpp luñ ci dugg yaa defalee ci ndimbal defalee ndax dañuy jiital xalaat bu ko ci yoon doo ko yëkkati ndax lii kat bañ ca yi doy na sëkk ay kàddu buñ si toogoon bu guddi di wax mënuñoo romb kàddu yi dama kon nag Cheikh Mamadou Mountakha nee na sëriñ bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di yàgg waa daayira Touba Ca Kanam ngir xam ne yéen ñi ko seq ñëpp te dama koy faral di wax muy yow mi sëriñ Abdoul Ahad ak ñi topp seen ginnaaw dara itteel ñoo doon Sëriñ nekk nañ ca dara mooy Sëriñ Tuubaa loolaa waral tam ñu topp seen gannaaw ñëpp ñu ngi joxe seenum xeet bi ca def wala loolu yàlla yàlla yàggal ko ba li ngeen sumb bëgg koy jàppale ki fi nekkal Serigne Touba ci biir dëkk Serigne Touba bi nga xam ne Serigne Touba dëkk bi rek mooy li ko itteel moom toolu fu waay defee moom nga koy def yàlla yàlla gën a barkeel kuréel bi ba lii ngeen sumb tey bu dem ba nekk ay milliards yu bëree bëri yoo xam ne dana mën a amal njëriñ li nga xam ne néew nañ doole te bari na ci jamono. ba suñu borom waxtu wu di fàtte ñu war a dimbalee ñi nga xam ne dañoo niir ma li ñuy fiq min jour saati min saati yi man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah waaye nag kuy def lu baax rek day fekk nga génn askan boobu wóor na ci des sant na ndew na yaa xam ne dafoo yëkkatal bu baax bu dul loolu rek lañ ca yéene jëf ji day mat kon ñu jeexal ko kàddu yi di sant ñu fi teew ñëpp ñu gërëm di ñaan suñu borom liñ ci delloo ci tuyaama yàlla ñu tàmbali ci biir te dara ci ngir sant buñ ci dugg muy laa tuuti bu sadaqaatikum bil manni wal azaa yàlla ñu ko yàlla. Asalaamaaleykum wa rahmatulah.